ngi jaale sénégalais yépp ñi nga xam ni perte nañ seen mbokk ci xew-xew boobu ñi perte seen i yaay perte seen i baay perte seen i mag perte seen i frère ak seen i sœur seen i bàjjan ak seen i ak seen i xarit ak seen i ñu rafet njort te xam ni foofa bërëb booba ñu faatu kenn waru ci ñaaw njort dañuy rafet njort ci ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam dana ñooñu suñu faatu yowmal xiyaam dañuy dekki ak seen i armal di dóor ay labbayk allahuma labbayk te loolu wax dëgg yàlla dara ay nit dee nañ ci ay circonstances yu gën a ñàkk solo lii naqariwul doomu aadama yi xëy na dee moo métti wala façon dee di moo métti waaye nag lépp nañ ko delloo ci borom bi subhanahu wa taala ab julit loolu moo war a doon taxawaayam. خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bokki ñi ngi sant sunu borom sant gi mu yellool di ko sant di sàkku ci moom ndimbal di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar musal ñu ci suñu bon bon bakkan ñoo ngi seede ne amul benn buur <coughs> bu ñuy jaamu ci dëgg jaamu ko di jëriñ ñàkk jaamu ko di lore ku dul moom borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp njubam ba keroog bés penc gannaaw loolu mbokk yi ñu leen di dénk dénk suñu bopp ragal borom bi subhaanahu wa taala nekk ci ay digleem bàyyi ay tereem gannaaw loolu mbokk yi ñu xam ni ab julit dëgg-dëgg dafay nekk koo xam ni day am xel mu ñor xel muy nac di xalaat am gisiin boo xam ne gisiin bu wér la xew-xew yi xew ci jamono mu koy analyser ci xel moo xam ni xel muy xalaat xel mu xóot xel muy màcc lay doon waaye xew-xew bu ñëw da ciy jëriñu xew-xew yi xew ci jamono ju nekk bés bu nekk yàlla am ay xew-xew yu muy xewal ñuy xew xew-xew yooyu warul romb te amu ci ay jàngat yu mu war a def yàlla mi nga xam ni mooy xewal xew-xew yooyu moom mi nga xam ni lépp lu xew ci loxoom la nekk mooy ci moom tey ak ëllëg mbokk yi ci fan yii jàll xew na ci ay xew na ay xew yu métti yoo xam ne wàcc na ci kaw jullit ñi mu doon ay nattu yu diis doon ay métit yoo xam ne foo ko natt ci métit ci biir xol àgg na fa euh, mu juddoo ci mu sababoo ci yooyu ñaari mbir mooy xew-xew bu xew ci biir aj ji la te amul benn doomu aaram boo xam ni ci sa xel xalaatoon ngeen lu dem lu demee nii mën naa xew ci biir aj ji ujjaa ji nga xam ne ñoo jóge seen réew doon aji xalaatuñ ko ñoom ñi ngi tàggatoo woon seeni mbokk ànd ak mbégte yaakaar jaamu ji yàlla te am yaakaar gu dëgërit ne dañuy dellu siwaat waat fekk si waat seeni mbokk loolu moo doonoon seen yaakaar yaakaaruñu woon ne xew-xew dana fa xew ba bakkan ay bakkan di fa des suñu dëkkandoo yi ñu tàggoot yi ñu tàggoot yi ñu tàggu xalaatuñu woon loolu seeni xarit yi ñu tàggu xalaatuñu woon loolu réew ma leen dalal nga xam ne fa lañ doon ajee màkka réew ma dalal gan yooyu ñëwoon di jaamu si yàlla doon aji màkka xalaatul woon ne lu mel nii war naa mën a xew waaye lañ waroon a def ci waajal ko ñoom ci wàllu sécurité ci wàllu surveillance ci wàllu technologie utiliser technologie fa mu gën a yéeme loolu lépp def nañ ko seen kéem kàttan waaye yàlla su bëggee dara xew fekk mu xew mbokk yi euh, du ñu xuus ci jéem a analyser effet li ko waral li sabab mbir mi lan la ak cause yi li ko am lan la ak coow yu bëri yi ci am ak ñuy wax lu leen wóor leen wóorut yépp nekk ci di wax waaye enquête yi pare na euh, ma ngi ca loxo ña nga xam ne ñoom ñoo am sañ-sañu génnee ko publier ko wax ko ci heure bu jotee ak la ca xew ca détail yam gën a yam gën a sewe sukkandiku ci ay caméra surveillance ak ay nit yuñ jàpp ak yeneen ak yeneen donc détail yooyu duñ ci dugg ci ay fan yu néew loolu dana leer ci boppu monde musulman bi yépp dana leer seen bopp waaye lañu jublu ñun mooy xew-xew boobu jàngat ko jëriñu ci en tant que jullit boo xam ne xew-xew bu xew jàngat yi mu ci war a jàngat jëriñoo ko ci wàllu diineem bokk na ci mbokk yi la ci njëkk mooy yàlla subhaanahu wa taala dogalam moo jiitu sàkkuk asamaan ak suuf ak mbindaafoon yépp ci lu tolloog juróom fukki junni at laata muy sàkk dara ci la dogaloon lépp lu war a xew moom borom bi subhaanahu wa taala kon la war xew yàlla amaloon na ko lu jiitu juróom fukki junni at laata muy sàkk mbindaafoon yi kon lii ca foofa la ko yàlla xewaloon te foofa la ko yàlla dugaloon ne luy xew la booba sàkkagul asamaan ak suuf sàkkaguñ suñu maam aadam sàkkagul benn mbindaafoon ñaareel bi mooy doomu aadama boo gis muy dox ndeke dafa réere mujjam fan la ak naka lay mujjee amul benn doomu aadama bu yàlla may xam-xam nga maîtriser sag mujj naka la ak fan la loolu yàlla mayu ko benn doomu aadama borom bi subhaanahu wa loolu mbiram la moo tax yàlla mu ne yàlla mooy ki xam seen mbir yëpp maîtriser ko waaye loolu yéen xamu leen ko ñaareel bi amul benn bakkan bu maîtriser kañ lay faatu ak fan lay faatoo san suuf la war a faatoo ñi doon aji amu ci kenn ko yaakaaroon ni man màkka lay faatoo waaye borom bi subhanahu wa taala lu mu dawaloon la waroon am la borom bi nee na wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut amul benn bakkan bu xam ci ban suuf lay faatoo euh, juróomeel bi wala ñeenteel bi mooy doomu aadama bi saa su ne ci situation bu mu mënti nekk warul sàggane dajeeg boromam subhaanahu wa taala moment bu nekk na jàpp ne moom pare na pour dajeeg yàlla bu ko yàlla jëloon tey it moom pare na kon saa su ne dafa war a préparer boppam prépare wu psychologiquement def ci boppam ni saa su ne dee mën na ñëw ci moom parce que dee comme du la tàggu te moment bu nekk lay ñëw mën na la fekk ci jaamu yàlla mën na la fekk ci mooy yàlla mën na la fekk ci mbégte mën na la fekk ci kontante mën na la fekk ci naqar fekk la ci tiis situation bu nekk mën na ci ñëw kon loolu dafay waral ci jaam bi jaam bi pare pour daje ak boromam subhaanahu wa taala euh, juróomeel bi mooy amul benn bakkan buy faatu lu dul ci ndigalal yàlla xew-xew bi am na ñu nekkoon ci biir xew-xew bi mbiri di xew ñu koy seere di ko gis waaye ñi def ay pexe ba génn yàlla subhaanahu wa muccal leen te ñoom daanaka bu la neexee nga ne xaw nañoo gis dee xaw nañoo gis dee gis ay junni doomu aadama yu tëdd te la leen tëral ma daanaka tëraloon na ko te wala tëraloon na la waaye ci kàttan yàlla yàlla yëkkati la nga def ay pexe ba génn ba génn ci mbooloo mi bañ sowe la te faatuwoo te yaa ngi woon ci biir ñi dee loolu li muy tekki mooy yàlla subhaanahu mooy faat bakkan am na ñu ci nekk te faatu wuñ am ñu ci nekk faatu ñi ci nekk faatu yàlla moo bind na seenu faatu fii la ña ne woon faatuñu Euh, waruñoo faatoo ci xew-xew bi ak lu métti métti kon ndeke deewu bakkan ci loxo borom bi la nekk yàlla subhanahu wa taala saa bu ko soxlawee da koy jël. juróom-benneel bi mooy yàlla subhanahu wa taala su nammee defal jaamam mujj gu rafet da koy faat ci anam goo xam ni day gërëm jaam bi day faat jaam bi ci anam goo xam ni da koy gërëm xew-xew bi am na amaana ñoo xam ni amaana am na ñoo xam ni suñ ci faatu wutoon amaana seenu dem àjjana mën naa jafe. waaye yàlla subhaanahu wa taala ci mbaaxam yërmaandeem ngëneelam yaatoom ak xereñam xam ni jaam yi am na ci ñoo xam ni mën nañ aj sax waaye seenu aj mën naa ko bañ a nangu waaye circonstances yi su ma leen ci faatee ak situation bi ak déegu métti gi buntu la ci ñoom pour dem àjjana yàlla bëggal leen àjjana jël ci seen bakkan loolu lu jota lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax jaam bi war nay xalaatee noonu yàlla léeg-léeg muy bëggal jaam bi mucc gu rafet am ci nu mu ko jaaralee pour jaam gi am mucc ko rafet situation boobu bu amul jaam bi mënta am mucc gu rafet mbokk yi bu le lépp jàllee nga xam ne jàngat la ci xew-xew boobu war nañ bàyyi xelit ne tasaare rumeur di wax lu la wóorut ci ab julit danger la te situation bi dafa waral ay nit ñu bari ubbi seen làmmiñ di wax li ñuy wax maîtriser wuñ ko nekkuñu fa fekkewuñ xaw bi gëstuwuñ tu gëstu gu wér delluwuñ ci source yu wér ba war cee mën a wax ñu nekk ci ay média ci ay internet ci ay rajo ki télé di communiquer di wax ci li ñuy wax aba ba Z dara du ci dëgg li ñuy wax aussi dafa safaanook réalité bi am loolu moo tax loola ñuy wax rumeur lañ koy mën a tuddee te rumeur ci ngànnaay yi mën a tas société ci la bokk ngànnaay yi mën a jàpp bopp nit ba tere koo nelaw jaxase ko ci la bokk rumeur li mën a indi noonoo diggante ay xarit ci la bokk rumeur li ba mën a indi xeex sax diggante ay dëkk wala xeex diggante ay nit diggante ay société diggante ay diine diggante ay waaso rumeur da koy def moo tax lu jara a moytu la mbokk yi du ñu ëppal sax suñu demee ba ne am na ay réew yoo xam ni rumeur moo leen di dundal moo leen di yëkkati waaye am na ay réew yoo xam ne li daane seen économie daane seen puissance militaire boo ko xooloon rumeur la lu tegewul ci dëgg la loolu moo tax danger bu rëy rëy ci seeni euh, enquête wala seeni euh, cellule d'information wala seeni euh, agent de sécurité yi dañ ciy dugal ay nit ñoo xam ni léeg-léeg li leen tax a jog mooy jékki-jékki yëngal wala daal di tasaare benn rumeur pour teste doomu aadama yi xool seen niveau d'intelligence nu ñuy xalaatee ak seen gisiin ak mbir mi fan la war a mën a toll ci ab société. dem na bañ fabriquer ay ay ay ay ay agence walla ay société yoo xam ne ci li ñuy yëngatu mooy di liggéey ci wàllu rumeur. di ci liggéey léeg-léeg jékki loo xam ne rumeur la ñoom ñoo koy génne ay média bind ko ay nit di ci wax fekk na ay nit a ngi ginnaaw tasaar rumeur boobu pour bëgg xam société bi ñuy xalaatee wala seen gisin ci mbir mi wala lii si waroon a mën a am seen réaction lan lay doon. loolu moo tax lu mat a bàyyi xel la rumeur boobu nag mbokk yi alxuraan bàyyiloon nañu xel ba ni yonent yàlla yi ci seen bopp ak nit ñu baax ñu sax mucc ñu ci. Isa alayhi salaam mi ngi nii rumeur dem na bay sikki sàkkaloo ci juddam. di sikki sàkkaloo sik setam di sikki sàkkaloo ci taqal ko ci taqin woo xam ne taq bu tilim la gaaña dañ ñëw ne yow Mariam yow frère Haarun yow Mariam di frère Haarun sa baay doonu toon nit ku bon te sa yaay doonu doonu toon ab loolu lan moo ko waral mooy sukkandiku ci rumeur ba sikki sàkk ci juddu Isa alayhi salaam Yuusuf alayhi salaam doon yonent bu baax doon ko sell rumeur taxal ko ba sell gi newoon ci moom mbaax gi wëlbatiku ñu koy xoolee bët bu bon ci dëkk bi ba yàlla subhanahu wa taala mujj ko setal yàlla mu ni ñun ñoo ko Yuusuf ñun ñoo ko soril mon googa ñun ñoo ko soril mbon googa waaye Yuusuf ci jaamu ci jaamu yàlla yu sell yu baax yi ca la bokk. yonent yàlla Huud alayhi salaam aw nitam demoon nañ ba di tuumaal xelam ñu dafa am di ko tuumaal ne dafa dof ne ko yow su yow yow Huud inna la fi safaaha dañoo gis ne yow da nga ànd ak ndof te yow mii ci sa bopp dañoo yaakaar ne mbooleem li ngay wax dara du ci dëgg lekk léeg dem nañ ba ni seeni yàlla sax saaga gim leen di saaga wala xas gim leen di xas loolu moo affecté moom moom huut mu am problème mu xel ba ñu tasaare ko ci dëkk bi ne huut dafa am problème mu xel mbokk yi euh, rumeur bàyyiwul ba woote yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi biñ gàddaayee ci gàddaay gu njëkk gi jóge Màkka dem Éthiopie dem Habasha dañ tasaare ay rumeur ne waa Màkka dugg nañ ci lislaam ba ñoom ñu jógee Éthiopie ñëw daal di dellu si Màkka biñ ñëwee ba jege Màkka am ñu leen dogaale xamal leen ne mbir mi du dëgg rumeur la am ci ñoom ñoo xam ne mënatuñ dellu ñu dugg ci dëkk bi ñu dugg ci dëkk bi rumeur ba taxoon ñu dugg mbugal yi métti fekk leen ci am ñoo xam ne delluwaat na ñu duggoon sax am ñu génnaat daal di daal di dawaat loolu rumeur moom moo ko waral waaye yemul foofu mbokk yi rumeur moo waral ñu rey Ousmane Ibn Affan alxalifatu rachid nekk ñetteelu xalifa ci xalifa lislaam ay nit ñoo ko wër indi ay rumeur ne Ousmane mi ngi jëfandikoo euh, alalu réew mi ci lu dul yoon mi ngi jël ay mbokkam yu mbokkal benn deret bokk ak ñoom benn maam di leen jox poste yu gën a kawe ci ci ci biir ci biir dawla bi ci biir réew mi ñu koy jëriñoo bàyyi ñeneen ñi te loola dara du ci dëkk nit ñi vérifié wuñ waaye rek ñu gëm rumeur ba topp ko ba wër Ousmane ne ko euh, tere naa naan ay fan mar mu métti sonal ko ñu mujj daal di koy rey ci li nga xam ne moom mooy biir këram ca fitna googa xawaarij yi euh, moo indi xeex bi am ci maarakatul jamal euh, diggante Ali ak Aïcha maarakatu Siffin diggante Ali ak Muawiya alxawaarij daal ci sosoo chi euh, ay ca fitna googa lañ sosoo naka noonee alxadariya ci lañ sosoo almurjia ci lañ sosoo mboolem kuréel yi sànku ci lislaam tey am ay gisiin ak ay idéologie ak ay xalaatin yu bon yu wuteeg alxuraan ak ci rumeur wala mën nga ne ci euh, fitna googu nga xam ne ci lañ reye Ousmane moo taal mooy ndayu fitna yi nga xam ni moo topp lislaam ba jëmmi jamono ji mbokk yi euh, fitna ay rumeur topp na woote yonente bi alayhi salaatu salaam yu ci bëri am na waaye ba ca gën a garaaw mooy xaadisatul ifk mooy tuumaal soxna yonente bi alayhi salaatu salaam ne da doon njaalo ak saxaabi bu ñuy wax Safwaan ibnu Muattal as-Sulami nga xam ne yonente bi alayhi salaam daf ko ne woon ñun buñ tukkee buñ dal yow mujj fa suñ jógee ba dem nga ñëw xool bagage yu des wala lu ñu fa fàtte nga ramassé ko mu ñëw di xool bagage yu ñu fàtte fekk Aïcha dañoo dem fàtte ko fi ci benn mbaar bu ñu ko defaloon muy xëw dëj ñu fàtte ko ñu fàtte fa Aïcha fàtte fa xëw dëj bi moom mu génn doon noppale ci taatu garab gi bi Safwaan ñëwee daal di koy gis daal di koy gis euh, ñu daal di ànd di dem naafiq yi gestu gis leen ñuy ñëw ci ginnaaw ñu ne Aïcha setul ci waa ji waa ji setul ci Aïcha loolu nekk di agsi ci biir groupe bi nit ñi di ko waxtaane ñu àgg Madina tasaare ko ba mbir mi occupé waa Madina weer occupé yonent bi alayhi salaatu salaam ak Abu Bakr ak Safwaan ak ki nga xam ne mooy Aïcha radiyallahu anha yaa Aïcha mu ne weeru lëmm may jooy te du ma nelaw ba alquran wàcc ci juróom-ñaareelu asamaan daal di koy setal ci suratu nuur loolu lépp li ko waral moom mooy rumeur te société bi ñu dund nag ñun tey dafa am ay organe de presse yoo xam ne rumeur moo leen di dundal ba li gën a garaaw am na émission yoo xam ne émission yoo xam ne émission bi A ba lépp ci rumeur la tege nee nañ moom kay boo demee am na ila axirihi émission bi yëpp rumeur la ci rumeur boobu nit ñi di ci woote téléphone muy dugal xaalis borom émission bi kotam di yokk muy tëltëli di wax te li muy wax lépp rumeur la dara du ci dëkk ñu bàyyi ko ci mu ko di wéy te loolu mën naa taal dëkk mën naa taalu société parce que ci rumeur la ñu sukkandiku yàq benn deru mouvement wala benn deru association wala deru benn kuréel wala deru benn xeet wala deru benn askan bu yàggee loolu indi ak fippu am lu mu jur te loolu lépp ci rumeur lay tege te loolu mu ngi ne xuus tey ci suñu média lu demee noonu moo xew ci problème bi am ci aj màkka gi li xew ci màkka ci mina ay rumeur yu bëri ay nit di ci wax te li ñuy wax dara wóoru leen ci ay soi-disant spécialiste duñu di analyser te dañ leen a war a analyser loolu mooy li nga xam ne moom moo ci am donc nit ki suy wax war naa bàyyi xel bu baax a baax li muy wax parce que kàddu su xasee ba génn moomatoo ko te moom lañ lay xoole moo tax doomu adama bi balaa muy wax war naa xalaat bu baax a baax a baax li muy wax mbokk yi euh, suñ doon jàngat yoon yi nga xam ne moom la alxuraan teg pour ñu mën ko freiner ba du lor doomu aadama yi du lor société yi du yàq ngëm-ngëm yi du yàq diine nit ki mooy la ca jiitu mooy li yàlla subhanahu wa taala rëddal ci xistatul ifk boobu ñu jàng yàlla génne na ci ay règles yoo xam ni lépp luy rumeur buñ ci jaaree mën nañ ko mën nañ ko freiner ci ay tomb yoo xam ni moom la yàlla subhanahu wa taala tudd yooyu bokk na ba ca njëkk mooy doomu aadama bi di bàyyi xel bu baax a baax rafet njort ci mbokku jullitam bañ a ñaaw ci moom njort li nga am yi muy yaqiin ci sa mbokku jullit yaqiin boobu ku ñëw ñar ko nar ko dindi nar a yàq deram nar ko tuumaal teg ko ci ay rumeur na la jox firnde gu wér gu leer naññ gu gën a leer gi nga amoon yow pour nga bàyyi ngëm-ngëm wala ñi nga ko jàppee woon pour nga changer position na la indil bu gën a leer. tant que indil bu gën a leer yow li nga téye lu leer naññi la lu leer naññi kenn du ko bàyyi di dem ci loo xam ne lu lëndëm ko beneen bi. mooy euh, nit ki na sàkku na sàkku firnde ci lépp lu ko waay di wax jamono di nekk lépp lu waay di wax moyen technologie yi am ak gaaw a vérifier nga xam ne monde bi tey benn bul la lu la waay wax mën nga ko vérifier léegi léegi doomu aadama bi bul def lu ñu la wax nga gëm lu la waay wax na la indil firnde buy wane lam wax fan la ko teg loolu lu mat a bàyyi xel la. gaañe bañ indee xisatul ifk ba am ci ñu ko gëm ba mu leen di yedd daf leen wax ni lawlaa jaawu alayhi bi arbaati shuhada lu teewoon indi xam ngeen ci ne ci charia balaa ki dafa njaalo ñu tuumaal ko ko foog nga indi ñeenti seede yu wane ne ñoom ñoo ñoo seede mbir mi waaw ñoom indiwul di gëm loola ba mu leen di occupé pendant un mois waa Madina lu teewoon ñu indi ñeenti seede a gëm te ñoom indiwuñ loolu ba pare ngeen leen di gëm kon nit ki bu ko gëm lu dul dafa indi firnde yu wér ñetteel bi mooy bul def loo dégg wax bul def lu agsi ci yow it nga tasaare li ngay wax nan ko segg li ngay tasaare na nga ko segg dafa am ñoo xam ne lu agsi ci ñoom day jàll moo xam wax la dañ koy jàll dañuy jàllale wax ci bu fekkee image bu dañ koy jàllale yooyu dafa war a bàyyi daf nit ki da cee war a bàyyi xel li ngay tasaare da ci am responsabilité bul la rek ñoom ko tasaare man damay tasaare lépp loo tasaare da yàlla dala koy laaj moo xam wax la moo xam image la moo xam leneen li ngay tasaare na ko segg bu baax a baax bul ci wut siiw bul ci wut daraja wala dara wala maa ko njëkk a wala yu demee noonu tax média yi di njëkkante ku wax rek ñu taalal micro ci domaine bi te mbir mi du ku nekk ci war a bokk na ci mbokk yi mooy euh, euh, loolu borom bi dalil boobu li borom bi wax ni lawlaa is sami'tumuhu qultum maa yakunu lanaa an natakallam bi haaza waaye teewoon bi ngeen déggee wax ngeen ah ñun kat wax ji duñ ci waxagum tànk amuñu lu leer waaye wax ñëw rek ngeen ciy wax te amu leen ci lenn loo xam ne lu leer la ñeenteel bi mooy dafa am mbir yoo xam ni du mbiru nit ku nekk. moo ci war a wax dañ ko bàyyee am na ñoo xam ne ñoo am ahliya ñoo am sañ-sañ ñoo maîtriser ñoo yell ci wax ci duñ leen bàyyi ñu daal di ciy wax. gis nga mbiru feebar ak épidémie su ñëwee du ko nekk ciy wax duñ bàyyi ab mécanicien mu ciy wax duñ bàyyi ab julo buy jaay ci daral mu ciy wax duñ bàyyi chauffeuru taxi mu ciy wax dañuy bàyyi médecin yi ak ña affilié ci wàllu santé ñu cay wax. wàllu économie su ñëwee dañuy xool ña ca ña ca ñu bàyyi leen ñu wax waa loo xam dafa laal mbirum diine donte dafa nekk loo xam ne am na empleur populaire dëgg la waaye dafa laal ci diine kenn mënut ko ci génne ngir yàlla nañ bàyyi ñu maîtriser domaine bi ñu wax ci wax joo xam ne daañ jëriñ jullit ñi waaye li ñuy wax aussi dafa nekk loo xam ne teguñu ko ci politique li ñuy wax aussi teguñu ko ngir ni seen problème dañu am dañu am problème bu ñuy faj seen digganteem ak tel réew wala dafa am réew mu ñuy défendre moo tax ci cadre boobu la ñuy waxee déedéet dañuy wax rek yàlla tax aussi wax pour jëriñ jullit ñi loolu moo leen yëkkati loolu lu mat bàyyi xel la loolu moo borom bi mu ni waaw lu teewoon su fekkee am mbir dafa ñëw moo xam ni mbir la moo xam ni ci wàllu sécurité la wala mbir la moo xam ne nit ñi mën nañ ci tiit mën na indi panique mën na indi ci psychose mën nañ ci tiit waaw ñoom ñu koy tasaare lu teewoon balaa ñu koy tasaare dellee ko ci yàlla ak yonentam wala ñu dellee ko ci seeni borom xam-xam ya nga xam ni ñoom daañ ko jàngat génnee ci ay njëriñ jox leen ko borom bi mu ne su doona toon a ngëneelal yàlla ci yéen ak yërmandeem da ngeen topp ñu bëri ci daan topp seytaane ñu dul ñu ci yéen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 pet seeni frère ak seeni sœur seeni bàjjan ak seeni tànt ak seeni xarit ak seeni dëkkandoo ñu rafet njort te xam ni foofa bërëb booba ñu faatu kenn waru ci ñaaw njort dañuy rafet njort ci ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam dana ñooñu suñu faatu yowmal qiyaam dañuy dekki ak seeni armal di dóor ay labbayk allahumma labbayk te loolu wax dëgg yàlla dara gënu koo màgg ay nit dee nañ ci ay circonstances yu gën a ñàkk solo lii naqariwul doomu aadama yi xëy na dee waaye nag lépp nañ ko delloo ci borom bi subhanahu wa taala ab julit loolu moo war a doon taxawaayam lu dul loolu nit dana ci wax wax joo xam ne mën na ko génne ci diine قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون